respect Cissé Cissé Cissé bu CNG tey yaa ngi Mbour suba yaa ngi Thiès suba yaa ngi Iba Mar Diop ginnaaw suba yaa ngi arène nationale Papa Boy Djiné Papa Yade tey dimanche 17 mars 2019 Papa Boy Djiné am nga ñaari avertissement te dara xewagul ay eh, arbitre espace nañu arrière arbitre sifflé Papa Yade Papa booy Djiné wàcc ndaama la ba pare wàcc Papa Boy Djiné Papa Yada Séeri Ndey Géey moo bu verte bi Papa Yada moo jóge Tëngéej ama neex ko ande ak doomu dangu ñu ngi leewaatoo Papa Boy Djiné Alioune moo koy andi ñoom maji maji ak ñoom macca waaye Papa Yada damante baaraam moog Papa Boy Djiné Papa papa ñaari papa xeex raak ndax dañoo nar a raak Babacar raak mbaa du am papa booy jine yadda ña ngay damante baaraam papa booy jine papa moo ñu war moo ñu war ginnaaw noonu féete seen ndeyjoor papa nee na ko ñëwal ci digg géew bi ñu bëre ñëwal ci digg géew bi fa lay leere oh xalal ma arbitre ba fam toog Papa Boy Djiné ci ndam la jóge digganteem ak Nokia Papa Yada ci ndam la jóge digganteem ak Xeeru Ngor numéro 2 ku ci nekk fi nga mujjee bëre day nekk seen premier grand komba Jibson moo leen fi wo ay Jibson Jibson production li moo nekk deuxième journée am Papa Boy Djiné Papa Yada ña ngay damante baaraam door door ay éperkin la yor door door mu daanu maanaam door mu daanu jël na ko jël na ko daan na ko daan na ko Papa Yade daan na ko Papa Yade daan na Papa Boy Djiné songo ba baaxul Mohamed songo ba baaxul songo ma dafa sori songo ma dafa sori songo ma dafa sori songo ma songa ma baaxul Papa Yada da ko mbat songa ma dafa sori taxawal defal naa songa ma daa sori songa ma tegu ko ci yoon daa sori moom lay lay la la doomu dangu loo wax du nit barki Serigne Bamba du nit booy bi dafa seedal suma barki alxuraanu karim noo kii gaynde la barki mën naa lu nekk si làmb barki Serigne Touba yaakaaroon nga ni combat bi ni lay moo ko mën fuuf barke alxuraan yaram bëriwul barke alxuraan du moromam booy bi bu ñu ko joxee lak dëgër barke alxuraan mu jàngal ko bëre moo leen tax a bëre barke alxuraanu karim mbokam la maa ko man li ma wax ni dama ko tëf fu leer sànq gars yi dañ wax am man day daa diis ma nekk lu mu diis diis lu mu diis diis sa waay moo ko man kii maa ko doon entraîné man maa entraîneur am li ma wax duy caaxaan xamoon naa ne papa Yade daan na Papa Boy Djiné tegul combat ba ci yoon Mohamed Mohamed combat ba tegu ko ci